lañ koy sañoon te fii bu dee Touba dafa kaa dafa kaaw bu xaw a spécifique moo tax may wax ne ñi nga xam ne ñoo nekk ci conseil municipal bi war nañu ràññee ñaari cas am na ñaari mbubb yu ñu sol yoo xam ne buñ ko ràññee dana leen dimbale bi ci njëkk mooy ay jëwriñu sëñ bi lañu dafay dama koy misaal ci ab ab tool sëñ bi def leen ay jëwriñ mm, waa dëkk bi di ay surga bu euh, di ay apporté de moins bu boobaa ñu ne euh, waa conseil municipal bi yëpp ay ay ay ay ndaw yu sëñ bi lañu dañ koy liggéeyal ci dëkk bi ñoom ñu ni fii ni waaye dafa amaat beneen anam goo xam ne boo génnee loo cadre boobu ay élus locaux la ñoo xam si population bi ñoo leen fi teg bon loolu waxin la parce que xam nañ fii nu muy demee euh, lépp ci ndigal sëñ bi lay waaye ñoom ngir mën a yombal liggéey bi mooy ñu am ak euh, jàpp seen bopp comme ay élus locaux comme ñu nekk Dakar ñu nekk Thiès xam ne population bi ñu am droit de regard ci li ñuy def su ko defee léegi lépp lu ñuy defati Euh, la sëñ Cheikh Mbacke waxoon di teg nit ñi luñ man te di ko dugal fu ñu xam boo jëlee alu nit ñi dana teg luñ mën te buñ la ko joxee nga di ko def fu ñu xam donc loolu dana tax bu boobaa ëllëg tax si ak impôt bu ñu leen ko laajee nit ñi sawar ci nit ñi aussi xam ne it nit doo ko jiital di ko fakkatal euh, tey euh, li suñu Abdoulaye daan wax ni booy liggéeyloo ni dangay fexe ba mu nar ko moom la tubaab di wax leur donner la les moyens de leur mission mission bi ñu leen sas ay ñaaneki julli moom lijjanti ko ay taxes ak ay impôts moom moo koy lijjanti moo tax kon dañ ko war di fay di fay ay redevance lépp ñu teg ko ñu def ko de façon régulière mooy tax commune commune commune commune euh, conseil municipal bi mën am ay ressources ak ay moyens yu nga am ne si dana tax bu ndox ñàkkee ci benn quartier mu mën a ñëw régler ko fi saasa bu courant yàq ñàkkee wala lanay lanay loo xam ne si moom moom la war mu mën koo gaaw régler léegi ci tënk bu gaaw a gaaw rek euh, tëb naa point yu baree bari ngir bëgg man mën ak ci li nga xam ne si moom itteel mooy Touba ak rapport bi mu am ak infrastructure Touba ñaari type de rapport la am ak infrastructure euh, loolu dafay feeñ ci non seulement Touba sax waaye dëkk yi ay murit sëriñ yu murit yëpp créé te loolu mi ngi jóge ci njàngalem euh, sëriñ bi xam nga ne Touba dëkku diine la bu ñu nee nag dëkk la maanaam ville la waaye boo xam dafa am fonction religieuse madina zaat wazifa diini ji ñaar day daal di bu wu mooy kon am na euh, taabi madani ak taabi diini euh, aspect bu nga xam ne si aspect urbain la ak aspect religieux loolu nag dafay topp Touba ci anam yëpp non seulement day topp tubaa waaye mbooleem ñi nga xam ne Sëñ Touba moo leen façonné sant leen ñu sant sant ay dëkk wala ñu sant ay dëkk ginnaawam loolu aussi da leen ciy topp mooy euh, ñaari ñaari type d'infrastructure mooy am ci dëkku murid Euh, moom lay tuddee marafiq ahdaf marafiq ahdaf maanaam ay infrastructure yu nga xam ne ay objectif la maanaam moo représenté ay objectif sëñ Touba dëkk bu mu sanc wala ku sanc dëkk ci ndigalu sëñ bi wala nga sanc ko ngir moom euh, yàlla rek moom nga cay sàkk euh, foo xam ne nii da nga fa mën a jaamoo yàlla man faa yar njaboot yi dégg nga bañ mën a dund lislaam loolu mooy objectif yi yooyu dafa am ay infrastructure yu nga xam ne ñoo koy jëmmal mooy jàkka wala jumaa wala majlis ba wala daara ja ñuy tërbiyaat loolu mooy les infrastructures objectif beneen bi mooy infrastructure moyen marafiq wasail maanaam yi ma njëkk ñeent yi ma njëkk wax nii nga xam ne mooy objectif yi lii tax mu mën a nekk loolu mooy marafiq wasail yi yaani bën a tax yi nga xam ne si mooy tax mu nekk ngir mu gën a leer bu ngeen xoolee murid yi bu ñu seen kilifa yi murid bu ñu sañee dëkk bu ñëwee la ñuy njëkk def mooy jàkk ja la ñuy njëkk génne moom mu daal di sampu am ba àggal parce que loolu mooy objectif principal bi eh, jaamu yàlla eh, suñ paree daal di génne mm, kër gi nga xam ne si mm, ca la daara yi alquran ji nekk mm, ngir ñu mën a yar eh, jàngal donga yi génne waale fi ñuy jàng fi ñuy jàng xam-xam bu dee ñaare dafa ne ci àll bi dañ ci dañuy dox tuuti quelques kilomètres daa fay samp daara yi nga xam ne ca la ñuy tatbiya muy li ñuy wax daara laxasaay ñeent yooyu noonu léegi nag ngir yooyu mën a jàppale nit ñi mën faa nekk mën di jàmm ji yàlla man di jàng alxuraan dañuy fexe ba indi fa yoon aw yoon woo xam ne euh, dañ koy tëj bu mënee nekk mbaa ñu ran ran en tout cas danañ fa fexe yoon woo xam ne dañ ko mën a pratiquer euh, loolu ci marafiq euh, bi la bokk indi fa forage bu mënee nekk wala ab teer maanaam lay tax ndox jàpp ne fa bañ mën a dund indi fa courant bu nekk donc yooyu mooy marafiq wasaay li nga xam ne ay wasaa wasaay la mooy tax yi ma wax ni ñeent yi nga xam ne mooy li leen gën a itteel moom ci sañtu dëkk loola man faa sax man faa jàppani kon Touba ñaari infrastructure la am infrastructure objectif muy jàkka yeeg jumaa yeeg daara yi nga xam ne tey jii euh, moo yóbbaale li ci am yëpp ak infrastructure moyen léegi nag actuellement lan la Touba am ci ay infrastructure yooyu maanaam al tax taxtiya yi nga xam ne si euh, actuellement jàppandi na Touba loolu à titre d' exemple damay tudd ay misaal rek te ci tomb boobu lay euh, jeexale mooy li ma waxoon sax bunan taxtiya diiniya infrastructure eh, yoo xam ci wàllu diine la aju mooy jumaa yeeg jàkka yi xam ngeen à part jumaa yi li fi nekk ci ay jàkk xen xamul nu mu toll ak ay jumaa loolu dafa bokk ci aspect caractéristique yi nga xam ne si mooy wane ne fii dëkkub diine la moo koy ràññale ak yeneen dëkk yu bëree bëri am na fi benn bibliothèque bu mag eh, culturelle ak wàllu ci wàllu diine muy daari daari kaymel amaa na fi bibliothèque yu bëri yoo xam ne ay nit ñoo ko créer seen bopp ak ay imprimerie hmm, ak euh, benn source d'eau bu nga xam ne si su d'eau benn la maanaam fu ndox di jóge foo xam dañ ko barkeel muy aynu rahmati amaan na fi yeneen lu mel ne aynu rida euh, ak yeneen euh, bokk na ca ay kër yu ñu fonk yu ñu sellal muy ñetti kër sëñ Tuubaa yi nga xam ne si sëñ bee ko moomaloon boppam nekkoon ci bi mu bi mu nekkee tubaa muy daarul Xuddoos nga xam ne fa la bayti nekk daarul Minan ak daarul Rahman muy kër sëñ Chouaib naka noonu. barab yi nga xam ne si fi la ñuy euh, fi la ñuy euh, denc euh, way daw lii ak infrastructure yam àndal muy fa ñuy leen waajaleeg fa ñu leen jullee ak nag ay junni junni jaari alquran ak ay junni junni ay jàngukaayu xam-xam yoo xam ne nii am na fi boo ñëwee ci wàllu njàngu moderne suñu école Cheikh Mahamadou Mourtalaay mahahid al azhar al islamiyya mi ngi fi ak mahad ad durus al islamiyya bu seen Cheikh Mbacke ak ñaari université yoo xam ne si benn bi Eh, ci àggaleem moo ci des muy jaamaatu muy université bu Madiyana ba fi suñu iblaat tàmbali woon defe naa suñu iblaat ñu na ko léegi eh, eh, ak université bi nga xam ne si moom la sëñ Mamour sëñ Mourtada di tabax muy université Cheikh Ahmadou Bamba bi nga xam ne moo nekk moo nekk ndaam bu dee ci wàllu wér gu xam ngeen ay hôpital ak ay dispensaires yu bari am na fi naa tudd ñaar rek muy hôpital bi nga xam ne ne moom niveau 3 la moom ak principal ak Le Dantec ñoo ñoo ñoo tolloo ak hôpital bi nga xam ne bu yàggul lañ ko érigé euh, de santé bu Ndamaat nga xam ne moom lañ érigé bu yàggul ko hôpital bu dee ci wàllu commerce gis ngeen marché euh, marché Ocass nga xam ne mooy marché central bu Touba bu ñu defoon ko fi jamono Cheikh Mouhamadou Fadel ak marché yi fi judduwaat yëpp naka noonu ci wàllu énergie réseau euh, électrique bi léegi daanaka pratiquement carte yëpp euh, connecté nañ ci réseau bi euh, boo ñëwee ci wàllu communication téléphonie fixe automatique ak yu ak cellulaire yëpp am na fi tamit ak service yi mu àndal yëpp lu mel ne ay fax ak télégraphe ak yëpp nga xam ne kon day mel ne ci tënk ak mboolem infrastructure yi nga xam ne mooy dundal ab dëkk dëkk bu moderne tàmbali naa am tubaa waaye ñun ambition yi ñu war a am en tant que ay délégué Euh, maanaam lii war nañ koo xeeb bu baax a baax li nga xam ne am na Touba tëdd naa yu bëree bëri dama indi l'essentiel rek euh, kon ñun war nañ koo war nañoo xam li fi nekk te ci tomb boobu ci laay jeex la nga xam ne ay suggestion lay doon mooy al imkaniyat wa nuhaz euh, li tatwir toubawi potentialité yi nga xam ne ak opportunité yi nga xam ne Touba am na ko te li ko mooy mooy li mu nekk nekk dëkkub diine ak li mu représenté ci réew mi ak argument yi nga xam ne mën na koo euh, euh, joxe ci bu fekkee noonu état bi euh, dafa teg ay critères wane ni dëkk bu ko dajale parce que ci ginnaaw doon nañ fi wax waaw bu fekkee jox nañ Touba statut particulier mën na indi fi ay parce que waa Casamance mën nañu réclamer indépendance yeneen këru diine yi mën nañu laaj ci statut spécial ma ne loolu li ko doon régler mooy état bi day teg ay critère rek wane ne ku ko remplir ma jox la statut spécial bu boobaa na nga gis ne am na argument yi ci wàllu yoon am na ko ci wàllu koom-koom am ko ci wàllu politique am ko ci wàllu suuf am ko ci wàllu histoire parce que c'est le seul euh, euh, mooy dëkk bi nga xam ne ci Sénégal moom moo am titre foncier reconnu depuis le nga xam ne euh, Touba moom gi moom boppam moom ak sax Sénégal moom boppam moom Sénégal moom kon loolu yëpp ay atula yu nga xam ne si dëkk bi am na ko ba nga xam ne war nañoo tax ñun ñu nekk ay ñu ambitieux nee naa damay wax toujours ne le murid doit voir grand murid bëtam day rëy parce que sëñ Touba Euh, bët bu rëy moo tax mu doon li mu doon ndax bi muy feeñ fekkoon na léeg-léeg ak mbaax ne fi ak mbaax ne fi waaye daa ñëw xam ne lii am na lu ko gën euh, am na lu ko féete kaw mu yóotu loolu la jotee moo tax ñam fekkoon ci ñu baax euh, ñoom it yàlla dimbale leen ñu xam baax ñëw wuy bi an àndaale seenu baax mu téye leen seen baax googee ñoo nga la leen ba noppi tofal leen lëgal moo tax kon murit dafa war a rëy bët toujours dafay war a xool vers l'excellence mbir mu nekk mu cay xool la nga xam ne si moo gën Touba war mën naa weesu fii fii fuuf mën na ko weesu lool lool lool lool te yi koy may yëpp mi ngi fi daje ay gis-gis yu leer la laaj ak dogu ak ñeme tey nag da ci dañu àgg foo xam ne ci jamono moom da ngay jëf ci jamono baa jamono jëf ci yow moo tax ñu war a waajal suñu bopp bu baax a baax dañoo nekk ci jamono boo xam ne li ñu wax mondialisation nga xam ne boo jeexeetalut ñoom danañ jeexeetal ci yow Euh, léegi nag fexe waajal sa bopp ba nga xam ne lu ñëw yow da nga mën a ñëw capacité de discernement nga mën a xàmmee la la cay sa njariñ ak la ca dul sa njariñ la nga xam ne si maanaam mooy aaday nangam ak la dul aaday nangam ñu mën koo xam Touba ñoom ñi war nañu toll foofu waajal seen bopp ci googu fan ba nga xam ne euh, lépp lu ñëwati danañ xam nañ cee nañ cey doxee ndax bari na yoo xam ne nii euh, muy état bi ak ñeneen ak ñeneen danañu koy naxee noo xam ne finalement day mujj day jaar suñuy bët mel ne faveur bu ñu defal Touba la Euh, euh, warteef la boo xam ne ñoom lañ ko wax sañu ñu koo bañ sañu ko bañ te boo xoolee par rapport ak li nga xam ne si moom lañu war a defal dëkk bi da ngay gis ne euh, des na lu bëree bëri kon possible potentialité yooyu nga xam ne si ba am na ko dafay ñëw ci juróomi niveau te ci niveau yooyu laay tëjee bi isnillahi taala bi ci njëkk mooy zawaama diine yi kilifa diine yi maanaam ñu jiite yoon foofa niveau bu njëkk bi foofa la muy xalifa bi ak sëriñ si foofu dama ay projet yu nga xam ne si projet xalifa bi la war a doon xool projet xalifa bi la war a doon ñu di ko wootee ni ñu wootee jumaay tubaay da caa bokk université bi bee nga xam ne si ab xalifaa ko fi defoon nee naa ab xalifaa ko a am ay projet yoo xam ne xilaaf ak yoonu murit ko war a jël en charge wootee ni mu wootee jumaay Tuubaa ji murit yi financé ko loolu yoon yi toujours noonu la doon doxee jamono Cheikh Mouhamadou Moustapha bi ñu bëggee taxawal jumaa yi si Moustapha ak mag ña dégg nga dañu ak télévision bi waaye dañoo daan ànd naal jumaa ji ak préalable ya waroon am yëpp Cheikh Mouhamadou Fall bam ñëwee ci même rythme boobu la continué ba jumaa ji ubbee ko mbooleem grand projet yi nga xam ne si yoon yu réalisé na ko ci noonu lañ ko réalisé am na projet yoo xam ne projet xilaafa gi la war a doon am na ci projet yoo xam ne nag projet kër yi lay doon kër sëñ Abdoulaye kër sëñ Fallou kër sëñ Darou Khoudoss Darou Mouhty yooyu ay projet kër la yoo xam ne si euh, fu ñu ko wootee kenn warta jàpp ne euh, maanaam sëñ jiw moo ko woote du ma du sama sëriñ damay wax lay xew darom lay xew daru salaam lay xew kër sëñ Fallou lay xew daru xudus lépp yëfi yoon wi la moo tax fu ci murid jege eh, luy xew ci kër yooyu da war a jàpp ne sa yëf la loo ca mën nga def ko waaye waroo koo daal di féetale kër ndax bi yu bëree bëri bi mu commencé sooxe bi ñu tàmbalee eh, naan la léegi ku ajuwut foofa rek eh, juddoo woo fa mbaa doo yow bu la neexee da nga ci daal di la yu bëree bëri di di di sooxe Eh, dañoo war a jël projet yoon yi ñun ñëpp ñu tamba nii ko xam ne suñu yëf la propriété collective la eh, bokk na ca yoo xam ne ci niveau populaire la mooy nun ndongo yi am na projet yoo xam ne ñun ñoo ko war def wane nañ ci ay yoon ndax lu mel ne matabul fausé ni nga xam ne d'ailleurs la boo xam ne nii maire yi daan jaay caar sax dañ daan joxe seen i ñaar dara ak seen juróom ba ba dajale juróom benn milliard ba defar ko projet yi mel noonu daa war di dellusiwaat daa war di jël si waat tey dëkk bi talibé suñu ci waaye am na ci ay borom bi capitaux yu nga xam ne si man fii Touba am na fi ay commerçant yoo xam ne ni am nañ capital bu wér-wér boo xam ne bu ñu daj bu ñu booloo woon dajaloo danañ am loo xam mën a ubbi benn euh, usine boo xam ay gone yu bare bari ci dëkk bi danañ fi danañ fi danañ fi liggéey benn gone bu liggéey benn jeune boo jox bu liggéey rek xamal yaa ngi dund tutul famille ci ginnaaw toute une famille ci ginnaaw am na ci ay boroomi capitaux yoo xam ne bu i capitaux mën nañu un banque d' investissement wala un banque de développement bu nga xam ne murid yi finalement ñooy dem bay financer projet yi nga xam ne dootuñ euh, euh, ajoote ci kenn donc kon ñun donga yi war nañoo liggéey baax ci projet yi nga xam ne ci coono wax loolu mooy ci niveau jëmm yi waaye ci niveau daayira yi tamit aussi euh, war nañ cee gën a fonkaat bu baax a baax mu nekk ay daayira de développement daayira de développement ak daayira yu nga xam ne si dañuy intervenir sur le social Euh, damay wax ne ñun fekk nga noonu loolu Sëñ Tuubaa waxoon wa am ziril naf xam na kaana dur ñun déggoon nañ ko euh, kon nag ni waroon naa fekk lii Caritas di def fii ci ci ci réew mi ci wàllu ay œuvre sociale ak euh, communauté santé et bio bee ngeen di dégg ci Italie nga xam ne ñoom lañu yaakaar ci Casamance pour ñu lijjanti ko kon murid yi ñooy def loolu Euh, lii waa Croix-Rouge di def nga xam ne si fu mbënn amee fu inondation amee fu catastrophe amee fu tremblement de terre amee nga seen la dafa ñuy xeetali nit euh, am na bu yàgg-yàgg xëy euh, irada murid boo xam ne waxuma ne fu ay murid amee jafe-jafe waaye fu ab jullit amee jafe-jafe fu ab doomu aadama amee jafe-jafe ay doongay suñu Tuubaa dem nañ fa di def lu demee noonu loolu suñu Tuubaa jàngal nañu ko moo tax kon war nañ cee liggéey bu baax a baax a baax Euh, beneen bi ci topp mooy assuut al idaari al mahaliya waxoon naa ko sànq dama koy tënk mooy conseil municipal bi autorité locale bi fi nekk am na ci projet yoo xam ne moom moo ko war a taxawee du ma ciy guddal ndax jaaroon naa ci benn mooy autorité le pouvoir central muy état bi nga xam ne si moo nekk Dakar gouvernement bi am na ci projet yu nga xam ne si dans le cadre de la politique nationale ne si moom la état bi appliqué nga xam na ci yoo xam ne nag ay cas spécifique ci ne da ngay jël ay xususiyaatam si nga xam si am na ko eh, saqaafi yow ila axiri léegi nga tenir compte ci yooyu ba nga xam ne ay projet bu ci nekk da nga si moom nga fa investir loolu effectivement état bi mel na ne yow na ci parce que li ñuy wax li ñu commencé bi ñuy wax annoncé acte 3 de la bokk na ci la ñu waxoon mooy tamit pour de développement yi nga xam ne région yu ne dañu xool si spécificité culturelle euh, ethnique ak tout ça pour que ñu xool projet yi nga xam ne si moom méngoog zone booba Touba am na lu deme noonu kon euh, incha allahu taala lii mooy li nga xam ne ñun waajaloon nañ ko di ñaan rek ci fi may jeexale mooy nun dongay sëñ Tuubaa yi ñu fexe ba wa anzili sëñ Tuubaa yooyee ca matla bu sifaay dinañ ko jàng bu baax wa anzilam yooyee euh, ay ndigal yu ñu sëñ bi jox yoo xam ne ñun ñëpp dañoo war a góorgóorlu fexe ba ndigal yooyu nekk jëm nekk lu concret dans la pratique dañu fexe bokk ci ñooñu muy wa anzil al-ilma makaanal jahli joojee mu waxoon wàccee euh, xam-xam ci barabu réer sañ bi nee nañ yi école nañ tabaxi université nañ tabaxi institut wa anzil al-ghina makaanal faqri wàcceel am xam ci place ñàkk sëñ bi nee nañ ubbi ay société nañ créé ay entreprise nit ñi gone yi liggéey mag euh, gone yi jàng mag ñi liggéey bu mag ñi liggéeyee da nga weer wu dee ñu séddale leen xaalis consommation bi day daal di dox bu consommation bi doxee mooy secteur euh, euh, euh, tertiaire mm, bu doxee secteur secondaire day daal dox secteur primaire daal dox wa anzilil xayra makaan seri jooju sëñ bi nee nañ doon ay nit jàmm nañ doon ay nit jàmm ñoo xam ne non seulement dañ koy doon waaye dañ koy nag ay architecte ay acteur de la paix nga xam ne fu aw ay nekk ñun ñooy dem di fay ay woowa wa anzil shukra makaanal kufi nañu doon ay santaakoon bu baax a baax a baax waaleykum salaam jërëjëf sëriñ Hamsatu euh, na lan mooy albuna albuna tahtiya te mooy infrastructure yaakaar naa day wane visionnaire bi nga xam ne Cheikh Abdoul Ahad nekkoon na ko ku am gis-gis ndax lii bu ngeen gisee ñu ko leeral jamono yi nga xam ne mi ngi fi nekk yi mu doon def am na sax ñoo xam ne dañuy jàppoon ne lii xëy na taxawaayu nitu àdduna la waroon waaye dafa fekk ne li sëriñ Fallou bu soo léegi dafa nekk kilifa diine gu mat sëkk goo xam ne xam na lan mooy responsabilité bi daal ci kawam xam ne nit ñi boo leen di jiite leen jiite seen mbirum diine seen mbirum diine mbirum àdduna daf caa bokk àdduna dafa bokk ci diine wala tansa nasibaka minad dunya wabtaxi fii maa ataaka te fii bu dee Touba dafa kaa dafa kaaw bu xaw a moo tax may wax ne ñi nga xam ne ñoo nekk ci conseil municipal bi war nañu ràññee ñaari cas am na ñaari mbubb yu ñu sol yoo xam ne buñ ko ràññee dana leen dimbale bi ci njëkk mooy ay jëwriñu sëñ bi lañ dafay dama koy misaal ci ab ab tool sëñ bi def leen ay jëwriñ mm, waa dëkk bi di ay surga bu euh, di ay ab de moins bu boobaa ñu nag waa conseil municipal bi yëpp ay ay ay ay ndawi sëñ bi lañu dañ koy liggéeyal ci dëkk bi ñoom ñu ni fii ni jawriñ waaye dafa amaat beneen anam koo xam ne boo génnee loo cadre boobu ay élus locaux la ñoo si population bi ñoo leen fi teg bon loolu waxin la parce que xam nañ fii nu muy demee euh, lépp ci ndigal sëñ bi lay taxee waaye ñoom ngir mën a yombal liggéey bi mooy ñu am ak euh, jàpp seen bopp comme ay élus locaux comme ñu nekk Dakar ñu nekk Thiès xam ne population bi ñu am droit de regard ci li ñuy def su ko defee léegi lépp lu ñuy defati Euh, la sëñ Cheikh Mbacke waxoon di teg nit ñi luñ man te di ko dugal fu ñu xam boo jëlee alu nit ñi dana teg luñ man te bu la ko joxee nga di ko def fu ñu xam donc loolu dana tax bu boobaa ëllëg tax yeeg impôt yi bu ñu leen ko laajee nit ñi sawar ci nit ñi aussi xam ne it nit doo ko jiital di ko fakkatal euh, tey euh, li suñu Abdou daan wax ni booy liggéeyloo ni dangay fexe ba mu nar ko moom la tubaab di wax leur donner la les moyens de leur mission mission bi ñu leen sax ay ñaan ak julli moom lijjanti ko ay taxes ak ay impôts moom moo koy lijjanti moo tax kon dañ ko war di fay di fay ay redevance lépp ñu teg ko ñu def ko de façon régulière mooy tax commune commune commune commune euh, conseil municipal bi mën am ay ressources ak ay moyens yu nga am na si dana tax bu ndox ñàkkee ci benn quartier mu mën a ñëw régler ko fi saasa bu courant yàq ñàkkee wala lanay lanay loo xam ne si moom moom la war mu mën koo gaaw régler léegi ci tënk bu gaaw a gaaw rek dem euh, tëb naa point yu baree bari ngir bëgg a mën ak ci li nga xam ne si moom itteel mooy Touba ak rapport bi mu am ak infrastructure Touba ñaari type de rapport la am ak infrastructure euh, loolu dafay feeñ ci non seulement Touba sax waaye dëkk yi ay murit sëriñ yu murit yëpp créé te loolu mi ngi jóge ci njàngalem euh, sëriñ bi xam nga ne Touba dëkku diine la bu ñu nee nag dëkk la maanaam ville la waaye boo xam dafa am fonction religieuse Euh, euh, madina zaat wazifa diini ji ñaar day daal di bu foofu mooy kon am na euh, taabi madani ak taabi diini aspect bu nga xam ne si aspect urbain la ak aspect religieux loolu nag dafay topp Touba ci anam yëpp non seulement day topp tubaa waaye mbooleem ñi nga xam ne si Touba moo leen façonné sant leen ñu sant sant ay dëkk wala ñu sant ay dëkk ginnaawam loolu aussi da leen ciy topp mooy ñaari ñaari type d'infrastructure mooy am ci dëkkub murit Euh, moom lay tuddee marafiq ahdaf marafiq ahdaf maanaam ay infrastructure yu nga xam ne ay objectif la maanaam moo représenté ay objectif sëñ Touba dëkk bu mu sanc wala ku sanc dëkk ci ndigalu sëñ bi wala nga sanc ko ngir moom euh, yàlla rek moom nga cay sàkk euh, foo xam ne nii da nga fa mën a jaamoo yàlla man faa yar njaboot yi dégg nga bañ mën a dund lislaam loolu mooy objectif yi yooyu dafa am ay infrastructure yu nga xam ne ñoo koy jëmmal mooy jàkka ja wala jumaa ja daaree alquran wala majlis ba wala daara ja ñuy tërbiyaat loolu mooy les infrastructures objectifs beneen bi mooy infrastructure moyen marafiq wasail maanaam yi ma njëkk ñeent yi ma njëkk wax nii nga xam ne mooy objectif yi lii tax mu mën a nekk loolu mooy marafiq wasail yi yani bën a tax yi nga xam ne si mooy tax mu nekk ngir mu gën a leer bu ngeen xoolee murid yi bu sëriñ kilifa yi murid yi bu ñu sa jël dëkk bu ñëwee la ñuy njëkk def mooy jàkk ja la ñuy njëkk génne moom mu daal di sampu am ba àggal parce que loolu mooy objectif principal bi eh, jaamu yàlla eh, suñu paree daal di génne mm, kër gi nga xam ne si mm, ci la daara yi alxuraan ji nekk mm, ngir ñu mën a yar eh, jàngal dongo yi génne waale fi ñuy jàng fi ñuy jàng xam-xam bu dee ñaare dafa ne ci àll bi dañ ci dañuy dox tuuti quelques kilomètres daal fay samp daal yi nga xam ci la ñuy tatbiya muy li ñuy wax daara laxasaay ñeent yooyu noonu léegi nag ngir yooyu mën a jàpp nit ñi mën faa nekk man di jàmm ji yàlla mën di jàng alxuraan dañuy fexe ba indi fa yoon aw yoon woo xam ne euh, dañ koy tëj bu ma nee nekk mbaa ñu ran ran en tout cas danañ fa fexe yoon woo xam ko mën a pratiquer euh, loolu ci marafiq euh, wasaay bi la bokk indi fa forage bu mënee nekk wala ab maanaam lay tax ndox jàpp ne fa ba ñu mën a dund indi fa courant bu nekk donc yooyu mooy marafiq wasaay li nga xam ne ay wasaa wasaay la mooy tax yi ma wax ni ñeent yi nga xam ne mooy li leen gën a itteel moom ci sañtu dëkk loola man faa sax man faa jàppandi kon Touba ñaari infrastructure la am infrastructure objectif muy jàkka yeek jumaa yeeg daara yi nga xam ne tey jii euh, moo yóbbaale yi ci am yëpp ak infrastructure moyen léegi nag actuellement lan la Touba am ci ay infrastructure yooyu maanaam al tax taxtiya yi nga xam ne si euh, actuellement jàppandi na Touba loolu à titre d' exemple damay tudd ay misaal rek te ci tomb boobu lay euh, jeexale mooy li ma waxoon sax bunan taxtiya diiniya infrastructure eh, yoo xam ci wàllu diine la aju mooy jumaa yeeg jàkka yi xam ngeen à part jumaa yi li fi nekk ci ay jàkk kenn xamul nu mu tool ak ay jumaa loolu dafa bokk ci aspect caractéristique yi nga xam ne si mooy wane ne fii dëkkub diine la moo koy ràññale ak yeneen dëkk yu bëree bëri am na fi benn bibliothèque bu mag euh, culturelle ak wàllu ci wàllu diine muy daari daari kaymel amaa na fi bibliothèque yu bëri yoo xam ne ay nit ñoo ko créer seen bopp ay imprimerie hmm, ak euh, benn su d'eau bu nga xam ne si source d'eau benn la maanaam fu ndox di jóge foo xam dañ ko barkeel muy aynu rahmati amaan na fi yeneen lu mel ne aynu rida euh, ak yeneen euh, bokk na ca ay kër yu ñu fonk yu ñu sellal muy ñetti kër sëñ Tuubaa yi nga xam ne si sëñ bee ko moomaloon boppam nekkoon ci bi mu nekkee Tuubaa muy daarul Xuddoos nga xam ne fa la bayti nekk daarul Minan ak daarul Rahman muy kër sëñ Chouaib naka noonu. barab yi nga xam ne si fi la ñuy euh, fi la ñuy euh, denc way daw lii ak infrastructure yam àndal muy fa ñuy dañuy waajaleeg fañ leen jullee ak nag ay junni junni daari alquran ak ay junni junni ay jàngukaayu xam-xam euh, yoo xam ne nii am na fi boo ñëwee ci wàllu njàngu moderne su ngeen école Cheikh Mahamadou Mourtala mahahid al azhar al islamiyya mi ngi fi ak mahad ad durus al islamiyya bu seen Cheikh Mbacke ak ñaari université yu nga xam ne si benn bi eh, ci àggale moo ci des muy jaamiatu muy université bu Madiana bee fi si iblaat tàmbali woon defe naa si iblaat duñu na ko léegi ak eh, eh, ak université bi nga xam ne si moom la sëñ Mamour sëñ Mourtada di tabax muy université Cheikh Ahmadou Bamba bi nga xam ne moo nekk moo nekk ndaam bu dee ci wàllu wér-gu-yaram xam ngeen ne ay hôpital ak ay dispensaires yu bari am na fi naa tudd ñaar rek muy hôpital bi nga xam ne murid yi ñoo dajal seen xaalis def moom niveau 3 la moom ak principal ak Le Dantec ñoo tolloo ak hôpital bi nga xam ne bu yàggul lañ ko érigé euh, centre de santé bu Ndamaat nga xam ne moom lañ érigé bu yàggul mu ñu ko hôpital bu dee ci wàllu commerce gis ngeen marché euh, marché Ocass nga xam ne mooy marché central bu Touba bu ñu defoon ko fi jamono Cheikh Mouhamadou Fadel ak marché fi judduwaat yëpp naka noonu ci wàllu énergie réseau euh, électrique bi léegi daanaka pratiquement carte yëpp euh, connecté nañ ci réseau bi euh, boo ñëwee ci wàllu communication téléphonie fixe automatique ak yo ak cellulaire yëpp am na fi tamit ak service yi mu àndal yëpp lu mel ne ay fax ak télégraphe ak yëpp nga xam ne kon day mel ne ci tënk ak mboolem infrastructure yi nga xam ne mooy dundal ab dëkk dëkk bu moderne tàmbali naa am Touba waaye ñun ambition yi ñu war a am en tant que ay délégué Sëñ Euh, maanaam lii war nañ koo xeeb bu baax a baax li nga xam ne tu am na Touba tu tëdd naa yu bëree bëri dama indi l'essentiel rek euh, kon ñun war nañ koo war nañoo xeeb li fi nekk te ci tomb boobu ci laay jeex la nga xam ne ay lay doon mooy al imkaniyat wa nuhaz euh, li tatwir Touba wi pour sax potentialité yi nga xam ne ak opportunité yi nga xam ne am na ko te li ko mooy mooy li mu nekk nekk dëkkub diine ak li mu représenté ci réew mi ak argument yi nga xam ne mën na koo euh, euh, joxe ci bu fekkee noonu état bi euh, dafa teg ay critères wane ni dëkk bu ko dajale parce que ci ginnaaw doon nañ fi wax waaw bu fekkee jox nañ Touba statut particulier mën na indi fi ay tension sociale parce que waa Casamance mën nañu réclamer indépendance yeneen këru diine yi mën nañu laaj ci statut spécial ma ne loolu li ko doon régler mooy état bi day teg ay critères rek wane ne ku ko remplir ma jox la statut spécial bu boobaa na nga gis ne Touba am na argument yi ci wàllu yoon am na ko ci wàllu koom-koom am ko ci wàllu politique am ko ci wàllu suuf am ko ci wàllu histoire parce que c'est le seul euh, euh, mooy dëkk bi nga xam ne ci Sénégal moom moo am titre foncier reconnu depuis le colon nga xam ne euh, Touba moom gi moom boppam moom ak sax Sénégal moom boppam moom Sénégal moom boppam kon loolu yëpp ay atu la yu xam ne si dëkk bi am na ko ba nga xam ne war nañoo tax ñun ñu nekk ay ñu ambitieux nee naa damay wax toujours ne le murid doit voir grand murid bëtam day rëy parce que sëñ Touba Euh, bët bu rëy moo tax mu doon li mu doon ndax bi muy feeñ fekkoon na li léeg ak mbaax ne fi ak mbaax ne fi waaye daa ñëw xam ne lii am na lu ko gën euh, am na lu ko féete kaw mu yóotu loolu la jotee moo tax ñam fekkoon ci ñu baax euh, ñoom it yàlla dimbale leen ñu xam baax ñëw wuy si seen bi an àndaale seenu baax mu téye leen seen baax googee ñoo leen ko ba noppi tofal leen gën moo tax kon murit dafa war a rëy bët toujours dafay war a xool vers l'excellence mbir mu nekk mu cay xool la nga xam ne si moo gën Touba mën naa weesu fii fii fuuf mën na ko weesu lool lool lool te yi koy may yëpp mi ngi fi daje ay gis-gis yu leer la laaj ak dogu ak ñeme tey nag da ci dañu àgg foo xam ne ci jamono moom da ngay jëf ci jamono mbaa jamono jëf ci yow moo tax ñu war a waajal suñu bopp bu baax a baax dañoo nekk ci jamono boo xam ne li ñu wax mondialisation nga xam ne boo jeexeetalut ñoom danañ jeexeetal ci yow Euh, léegi nag fexe waajal sa bopp ba nga xam ne lu ñëw yow da nga mën a ñëw capacité de discernement nga mën a xàmmee la la cay sa njariñ ak la ca dul sa njariñ la nga xam ne si maanaam mooy aaday nangam ak la dul aaday nangam ñu mën koo xam Touba ñoom ñi war nañu toll foofu waajal seen bopp ci googu fan ba nga xam ne euh, lépp lu ñëwati danañ xam nañ cee nañ cey doxee ndax bari na yoo xam ne nii euh, muy état bi ak ñeneen ak ñeneen danañu koy naxee noo xam ne finalement mujj day jaar suñuy bët mel ne faveur bu ñu defal Touba la Euh, euh, warteef la boo xam ne ñoom lañ ko war sañu ñu bañ sañu ko bañ te boo xoolee par rapport ak li nga xam ne si moom la ñu war a defal dëkk bi da ngay gis ne euh, des na lu bëree bari kon possible potentialité yooyu nga xam ne si Touba am na ko dafay ñëw ci juróomi niveau te ci niveau yooyu laay tëjee bi isnillahi taala bi ci njëkk mooy zaama diine yi kilifa diine yi maanaam ñi jiite yoon foofa niveau bu njëkk bi foofa la muy xalifa bi ak sëriñ si foofu dama ay projet yu nga xam ne si projet yi xalifa bi la war a doon xool projet xalifa bi la war a ñu di ko wootee ni mu wootee jumaay tubaay da bokk université bi bee nga xam ne si ab xalifaa ko fi defoon nee naa ab xalifaa ko fi defoon ab xalifaa ko a projet yoo xam ne xilaaf ak yoonu murid moo war jël en charge wootee ko ni mu wootee jumaay tubaay ji mu yi financé ko loolu yoon yi toujours noonu la doon doxee jamono Cheikh Mouhamadou Moustapha bi ñu bëggee taxawal jumaa yi si Moustapha ak mag ñi dégg nga dañu ak télévision bi waaye dañoo daan ànd naal jumaa ji ak préalable ya waroon am yëpp Cheikh Mouhamadou Fall mu ñëwee ci même rythme boobu la continué ba jumaa ji ubbee ko mbooleem grand projet yi nga xam si yoon yu réalisé na ko ci noonu lañ ko réalisé am na projet yoo xam ne projet xilaafa gi la a doon am na ci projet yoo xam ne nag projet kër yi lay doon kër sëñ Abdoulaye kër sëñ Fallou kër sëñ Darou Khoudoss Darou Mouhty yooyu ay projet kër la yoo xam ne si euh, fu ñu ko wootee kenn warta jàpp ne euh, maanaam sëñ jiw moo ko woote du ma du sama sëriñ lay xew darom lay xew daru salaam lay xew ko sëñ Fallou lay xew daru xudus lépp yëfi yoon wi la moo tax fu ci murid jege eh, luy xew ci kër yooyu da war a jàpp ne sa yëf la loo ca mën nga def ko waaye waroo ko daal di féetale kër ndax bi yu bëree bëri bi mu commencé sooxe bi ñu tàmbalee féetale yëfi ay kër waa kër sëñ jiw la wala wala seenum naan la léegi ku ajuwut foofa rek Eh, juddoo woo fa mbaa doo fa taalibe yow bu la neexee da nga ci daal di fas sa loxo ci la yu bëree bëri di di di sooxe donc eh, dañoo war a jël projet yoon yi ñun ñëpp ñu tamba nii ko xam ne suñu yëf la propriété collective la eh, bokk na ca yi am na projet yoo xam ne ñun ñoo ko war a def wane nañ ci ay yoon ndax lu mel ne matabul fausé ni nga xam ne d'ailleurs la boo xam ne nii maire yi daan jaay caaf sax dañu daan joxe seen i ñaar dara ak juróom ba ba juróom benn milliard daa war di dellusiwaat tey dëkk bi talibé Sëriñ Tuubaa am na ci ay borom bi yu nga xam ne si man fi Touba am na fi ay commerçant yoo xam ne ni am nañ capital bu wér wér boo xam ne bu ñu daj bu ñu boole woon dajaloo danañ am loo xam mën a ubbi benn euh, usine boo xam ay gone yu bare bari ci dëkk bi danañ fi danañ fi danañ liggéey benn gone bu liggéey benn jeune boo jox bu liggéey rek xam ne yaa ngi dund tutul famille ci ginnaaw toute une famille ci ginnaaw am na ci ay boroomi capitaux yoo xam ne bu i capitaux mën nañu un banque d' investissement wala un banque de développement bu nga xam ne murid yi finalement ñooy dem bay financer projet yi murid yi nga xam ne dootuñ euh, euh, ajoote ci kenn donc kon ñun donga yi war nañoo liggéey baax ci projet yi nga xam ne si ci lu war loolu mooy ci niveau jëmm yi waaye ci niveau daayira yi tamit aussi euh, war nañ cee gën a fonkaat bu baax a baax mu nekk ay daayira de développement daayira de développement ak daayira yu nga xam ne si dañuy intervenir sur le social Euh, damay wax ne ñun fekk na noonu loolu si Tuubaa waxoon wa an ziril naf xam na kaana duru ñun déggoon nañ ko euh, kon nag li a naa fekk lii Caritas di def fii ci ci ci réew mi ci wàllu ay œuvre sociale ak euh, communauté santé et bio ba ngeen di dégg ci Italie nga xam ne ñoom lañu yaakaar ci Casamance pour ñu lijjanti ko kon murid yi ñooy def loolu lii euh, waa Croix-Rouge di def nga xam ne si fu mbënn amee fu inondation amee fu catastrophe amee fu tremblement de terre amee nga seen dafa ñuy xeetali am seen dafa makkaara duru yooyu ñu seen Tuubaa euh, am na bu yàgg-yàgg xëy euh, iraafa murid yee boo xam ne fu ay amee jafe-jafe fu ab jullit amee jafe-jafe fu ab doomu aadama amee jafe-jafe ay doongay seen di def lu demee noonu loolu seen Tuubaa jàngal nañu ko moo tax kon war nañ cee liggéey bu baax a baax a baax Euh, beneen bi ci topp mooy assuut al idaari al mahaliya waxoon naa ko sànq dama koy tënk mooy conseil municipal bi autorité locale bi fi nekk am na ci projet yoo xam ne moom moo ko war a taxawee du ma ciy guddal ndax jaaroon naa ci benn mooy autorité le pouvoir central muy état bi nga xam ne si moo nekk Dakar gouvernement bi am na ci projet yu nga xam ne si dans le cadre de nationale bi nga xam ne si moom la état bi appliqué nga xam ne la ñuy def Touba moom la ñuy Tivaouane def ko feneen ak feneen loolu c'est normal dañu ko war def fii waaye am na ci yoo xam ne nag ay cas spécifique la nga xam ne dëkk dëkk bu ci ne da ngay jël ay xususiyaatam ay xasaay si yi nga xam ne si am na ko eh, saqaafi yow ila léegi nga tenir compte ci yooyu ne projet bu ci nekk da nga ko ci moom nga bi mel na na ci parce que li ñuy wax ñu commencé bi wax annoncé acte 3 de la décentralisation ci la ñu waxoon mooy tamit pôle de développement yi nga xam ne région yu ne si spécificité culturelle euh, et ak tout ça pour que ñu xool projet yi nga xam ne moom méngoo zone booba Touba am na lu demee noonu kon euh, incha allahu taala lii mooy li nga xam ne ñun waajaloon nañ ko di ñaan rek ci fi may jeexale mooy nun dongay seen jubaay yi ñu fexe ba wa anzili sëñ Tuubaa yooyee ca matlabu sifaay dinañ ko jàng bu baax wa anzilam yooyee eh, ay ndigal yu ñu sëñ bi jox yoo xam ne ñun ñëpp dañoo war a góorgóorlu fexe ba ndigal yooyee nekk jëm nekk lu concret dans la pratique te fexe bokk ci ñooñu muy wa anzili alma makaalal jahli joojee mu waxoon wàccee eh, xam-xam ci barabu réer sëñ bi nee nañ tabaxi école nañ tabaxi université nañ tabaxi institut wa anzilal ghina makaanal faqri wàcceel am comme ci place ñàkk sëñ bi nee nañu ubbi ay société nañ créé ay entreprise nit ñi gone yi liggéey mag eh, gone yi jàng mag ñi liggéey bu mag ñi liggéeyee da nga weer wu dee ñu séddale leen xaalis ñu yóbbu ko ci njaboot ga lépp day daal dox bu boobaa parce que consommation bi day daal di dox bu consommation bi doxee mooy secteur eh, eh, tertiaire mm, bu doxee secteur secondaire day daal dox secteur primaire daal dox wa anzilil xayra makaana seri jooju sëñ bi nee nañ doon ay nit jàmm nañ doon ay nit jàmm ñoo xam ne euh, non seulement dañ koy doon waaye dañ koy nekk ay assisté ay acteurs de la paix nga xam ne fu aw ay nekk ñun ñooy dem di euh, fay ay woowa wa am euh, shukra makaalal kufi nañu doon ay santaakoon bu baax a baax a baax asalaamaaleykum waaleykum salaam jërëjëf sëñ leeral na lan mooy albuna albuna tahtiya te mooy infrastructure yaakaar naa loolu day wane visionnaire bi nga xam ne Cheikh Abdoul nekkoon na ko ku am gis-gis ndax lii bu ngeen gisee ñu di ko leeral jamono ji nga xam ne mi ngi fi nekk yi mu doon def am na sax ñoo xam ne dañuy jàppoon ne lii xëy na taxawaayu nitu àdduna la waroon waaye dama fekk ne li Serigne Fallou bu soo waxoon léegi rek dafa nekk kilifa diine gu mat sëkk goo xam ne xam na lan mooy responsabilité bi daal ci kawam xam ne nit ñi boo leen di jiite da nga leen jiite seen mbirum diine seen mbirum diine mbirum adduna daf caa bokk adduna dafa bokk ci diine wala tansa nasibaka minal dunya wabtaxi fi ma ataka allahu daal audu billahi min alsheytaan wa sallallahu taala ala sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi ahmad al wa sallama tasliman wa baraka wa bam ñoo ngi nuyu mbokki jullit ñépp ñi fi teew ak ñi fi teew fépp foo xam ne image bi àgg na fa wala kàddu gi àgg fa ñoo ngi ziyaara alxalifatul am li taifa al muridiya sëriñ Sidi al Muxtaar le sëriñ Sidi Muxtaar ñu ngi ziyaara suñu kilifa gi nga xam ni moo fi toog jotaayu Cheikh Abdul Ahad muy sunu waajur di sunu sëriñ sëriñ Sidi Mbàkke ñoo ngi ziyaara mboolem suñu kilifa yu mag yi nekk ci dëkk bi ku mel ni Cheikh Mouhamadul Muntaqa ñu ngi ziyaare sunu waajur suñu sëriñ sëriñ Abo Mbàkke ak sëriñ Modou Muxtaar ak mboolem ñi nga xam ne ñooy xulafaay kër yi nga xam ne benn kër doomi sëriñ Touba lan woon walla kër ñu sëñ Touba sampoon lan ñu doonoon ay seex ñu ngi ziyaare kilifa yi nekk ci jotaay bi ñu ngi ziyaare ñi nga xam ne ñoo àq di jalsa bi ñu ngi ziyaar ziyaara képp koo xam ne kilifa diine la ci réew mi ah ñu ngi nuyuut kilifa diine yëpp ak kilifa aada yëpp di nuyu ñu nu bokkal réew mi ah, moo xam diine boole nanu moo xam diine boolewunu ak képp koo xam ne wax ji ak image bi agsi na ci moom ci réew mi walla ci bitim réew ginnaaw loolu euh, lii dafa doon point boo xam ne bu yaatu la boo xam ne jafe na lool waaye ñi ko waxit defe naa seen tuun ñu indil leen ab liste exhaustive comme. Euh, Euh, yaakaar naa am yaakaarum lool parce que am na ci loo xam ne euh, lu baree baree bare loo xam ne tuut tànk lan woon bi muy xew lu baree baree bari loo xam ne xew na suñ ginnaaw ci biir xilaafa gi ñu génn ko donc ay information yu agsi ci ñun yu ci bari am na ci yoo xam nag dund nañ ko moom waaye lu ci mën a nekk ñu jéem jéem xadral imkaan di sant ñi nga xam ne jaar nañ fii itam jël fi ay kàddu dafa mel ne jëfandikoo nañ tey uslub ilmi euh, approche scientifique parce que kenn ku nekk ci ñoom def na définition introduction développement euh, bi mu paree mu def conclusion loolu am solo la. Euh, wax dëgg yàlla mérité woo ngeen jotaay bi damay xalaat rek ma ne sëñ Abdou ak ni ma ko xame woon ak ni mu daa exploité yépp moyen yoo xam ne mooy tax mu mën a jokkaloo kilifay diine yi ci ay jamonoom jamono jii defe naa bu ci newoon it këram danañ gis ñu fiy jëfandikoo internet parce que booba yéen ma noonu jëfandikoo yépp a ngi fi am na fi oto yoo xam ne ñooy doxi yónneen yi di dem ak ñëw moom ci boppam dadaa dem moom itam suñu waajur ci boppam léeg-léeg benn bis man naa dem ñaari yoon Dakar ak yeneen yoo xam ne daf koy doxi téléphone bi mi ngi liggéey euh, euh, nit no non seulement yooyu ñi ngi am waaye moom itam mu ngi woo rajo bi léeg-léeg di communiquer moo xam ci événement la religieux walla beneen la waaye mi ngi woo di communiquer saa yu ne mi ngi communiquer dafa ko daa exploiter ci anam yëpp moo tax moom ay alaaqaatam yaakaar naa amul kenn koo xam ne mën na koo xasr parce que xilaafa gépp ay alaaqaat la bu ma jaaree ci fi mbokk yi jaar tuuti rek ñu xam alaaqa luñ ci jublu alaaqa lu yaatu la comme langue yi dafa gën a risante te bu dee ci wolof xawma dëgg-dëgg ban moo laa ko war a traduire parce que léeg-léeg nga gis koy ànd ak nit ñu ne moom mooy àndandoom léeg-léeg ñu ne mooy xaritam léeg-léeg ñu tuddee ko neneen waaye alaqa bu dee ci arab dañuy wax alaqa buñ waxee alaqal bairu wa naxwuhu min an nabaati aw nabata rek ñaar yëpp léeg-léeg ma mu taaddi léeg-léeg du taaddi bu ñu ko waxee lool luñ ci jublu mooy raahu min alaahu loolu lañ ci jublu donc gis nga alaaka foofu jubluwut li ma jortu ne moom lañ bëgg ñu wax ci alaaka ba tey ci alaaka di bu ñu waxee mën nañu wax ne alaaka fulaanun fulaanan aw alaqa fulaanun fulaanan aw alaqa fulaanun kooku mooy salaqahu mooy aadaahu lor na ko gis nga alaqa dana firi satama satmu alxusum awil xusuma alaqa ba tey yëmut foofu dana firi kullu ma taallaqa bi rajuli min maalin wa waladin wa zawjatin dañ koy tuddee alaaqa alaaqa ci arab ba tey dañ koy tuddee sadaqa dañ koy tuddee irtibaat dañ koy tuddee alxubb gis nga yooyu yëpp kon li tax taxdiit termo bi ngay waxee am ci solo parce que même discussion bu ngeen d'accordut ci définition bi man ngeen faa nekk jeexal waxtu wu bari te du ngeen jubboo parce que kii da koy dégg ni ne li ñuy wax lii la kii dégg ne bii la ñuy wax ndax sadaqa la ñuy wax ndax irtibaat duggante rek jokkaloo ndax alxubb lañ ci jublu yaakaar naa irtibaat bi moo gën a yaatu langue yi dafay gën a risante ndax buñ ko jëfandikoo ci français boo ne relation rek nit mën naa defe ne relation mooy bin jubloo wax te relation dana nekk action de relater récit narration comme relation de voyage man na nekk lien existant entre de deux choses comme ni ñu koy waxee relation de cause à effet mais re relation bi ñu jublu dëgg-dëgg mooy personne avec laquelle on est en rapport loolu lañ ci jublu nit kii amal rapport lañ ci jublu ci relation foofu la ñuy dikkee bi kon bu ñuy wax ci relation nit parce que dafa am aspect particulier mooy particularité particularité daf cay am parce que bu ko amul nit mënta ñàkk relation kon du am sens parce que nit ñëpp am relation li ñuy wax alaqa ijtimaia darura insaniya la wa darura diiniya daruura insaaniya bi mooy lan mooy ñi nga xam ne ñooy jàngale ilmul ijtimaa te mooy sociologie dañuy wax ne al insaanu kaainun ijtimaayun bi taban nit nature moo ko disposé moo ko prédisposé pour mu jokkaloog waa société bi muy dundal mënta ñàkk il faut mu jokkaloog ñoom parce que jokkaloo bu amul mooy xeet wi dafay taxaw te naasul du am takkante soxna maa ngi jéggulu ci terme bi wàññiwul dara sax du am ngeen jégg na kon du am te loolu mooy indi alxifaaz alal jinsil bashar yi kon jokkaloo mënta ñàkk jokkaloo bu amul tabaadulul manaafi du mën a am ndax man na maa am lu ma soxla am njëg gi mais keneen a koy yor moo xam même bu doon ci muqaayago nga xam ne kii dafa am màngo ma am soow ñu bëgg a weccee buñ gisewut wala jokkaloowul du sotti moo tax jokkaloo mënta ñàkk il faut ñu jokkaloo moo tax sunu borom bi muy wax gis nga li tax mu bind nit ñi te ñu dem ba 1946 Nations Unies soog koo confirmé parce que yàlla dafa wax ne yaa ayyuhan naasu inna xalaqnaakum min dakarin wa untha wa jaalnaakum shuuban wa qabaila li taarafu li taaruf amaa la ca des nag inna akramakum indallahi atqaakum gënante tafaadul moom comme ni ko sëñ bi rek waalam bi annama tafaawatul wara bil ilmi wa diini yakunu fasbira wa bihima yafdulu man qad fadala la bi intisaabihi li man qad kon relation mënta ñàkk ndax diine boo gisee sunu borom yu bari wax na ko te doomu aadama du ko mën a def te relation amul ndax xoolal bu fekkee dañoo def sunna mu akkada julli ci jamaa julli farata yi dut àjjuma julli ko ci jamaa nekk sunna mu akkada naka nga jullee ci jamaa te doo am relation ak jamaa mënta nekk il faut nga am relation ak ñoom bu fekkee ne àjjuma dañ koo farataal ak fi ko tollali idaanu delli salaat mi am jumaat façon ila dikrillah mënoo ñàkk a jaxasoo mbooloo mi loolu relation la parce que buñ fa jaxasoo ku manqué danañ ko laajte bu boobaa danañ xam wopp na wópput wala lan mooy ngànt li relation mënta ñàkk wa bil xaq wa tawaasaw bis ak tawaasaw bil xaq wa mënta am te nit ñi communiqué woon il faut ñu communiquer pour li yàlla wax ñu def wa taawanu alal birri wa taqwa fan lay mën a amee communication amul communication qui dit communication dit relation kon loolu mënta ñàkk darura insaniya la darura ijtimaaya alal aqal waaye darura diiniya ci lii ma mujj a wax moom la ci doon kon nit ku nekk dana am relation ak ñi ci des kon lu tax ñuy bàyyi ñi ci des tànn kenn nit ne lan moo nekkoon relation ak tel ou war na am aspect particulier aspect particulier bi bu dee xam nga nit ñi wuute nan ci ni ne ni ñuy créer relation ni ñu koy conserver kenn ku nekk lan mooy sa objectif ci relation yi ngay créer nit ñi dañ ci wuute waaye bu dee ci Sëñ du laat lenn benn mooy relation foofu irtibaat lañ ko mën a jàppe am nay xarit waaye irtibaat la parce que lenn dafa am dafa am loo xam ne sëñ Touba da leen ko jox muy ndono loo xam ne képp koo xam ne euh, bokk nga ci sëriñ Touba rawatina nga toog jotaayam mbooloo mi dañuy ñëw ci yow wallahu yansuru nii wal xalqu yatbau nii aw tatbau yëpp a dagan bu dee arab xaw ma nag ban la ci wallahu yansuru ni wal xalqu tatbau nii fil barri wal baxri daa nafain bila darari loolu sëñ Tuubaa moo ko wax gis nga mbooloo moom nga xam ni moo topp sëriñ Tuubaa ngir njariñam képp ku fi nekkal sëñ Tuubaa yaakaar jooja mu ngi Tuubaa mi ngi ci ñooñ sëñ Tuubaa te faaw ñu fekk si ko loolu moo am ci ñi nga xam ne ñoo dikk ginnaawam am na ñoo xam ne ci yoon wi leen bokk ñooñu kenn mënu leen a dissocier euh, sëñ bi ki ki leen jiite waaye am na ñeneen ñoo xam ne yaakaar moo leen fi indi yeneen yaakaar ni ko sëñ Tuubaa xoon min kum ba min kum min kum ma yuridu dunya min kum ma yuridul aaxira ñaar yépp am na fi loo ci bëgg sëñ bi am na ko ndax lépp bu fekkoon ne njariñu àdduna li Sëriñ Tuubaa daf ko soxla woon keneen du ci jot loolu am na ci lu wér loo xam ne ab xista bu ci amoon ci yelli xaw ma nan faal bi ko sëñ bi waxee ne ko mu ndax dangaa bëgg moom euh, dëkk ba num tuddati euh, maa ngi fàtte dëkk bi ab ab dëkk la ko wax xay na mu dikkaat sama xel ndax danga koo bëgg moom mu ne ko waaw sëñ bi ne ko walla danga ciy werante jox naa la ko wala danga ci am looy werante daal ne ko yow ku la jiite mu wax ko euh, commandant de beeg euh, kooku ku ko jiite mu wax ko ko kooku ku ko jiite ba mu dem ci gouverneur général ku ko jiite mu ne ko président de la république ku ko jiite mu ne ko amul ku ko jiite sëñ Tuubaa ne ko gis nga sama kaasu café bii mën naa cee def loo xam ne euh, ci laay foqe mbaxanam tàmbale ci yow mii nga xam ne dangaa taxaw ba ca kookee nga ne amut ku ko jiite waaye nag dafa tolloog ne suñ borom kum jox kum jox diine dénk la ko dalay dénkaale àdduna te bu ma ko jëlee woon ci ñoo ñooñi itam du ma am ku ma ko jox ku may sama njaboot rek te bu bu ma leen ko joxee ñu dem safara te man duma ànd ak koy dem safara moo tax ma bàyyi ko ca seen loxo luñ ca mën a jariñoo ñu jariñoo ko lu leen cay topp topp leen ci kon mooy sëñ Tuubaa bu soxla woon àdduna kon àdduna du des ca loxo yooyee taxu ko woon di liggéey nag am na solo ci ñu topp sëñ Touba ñu koy bàyyi xel bañ koo def priorité te xam ne dañ koy dimbandikoo rek ngir am fun jëm tam moo nuy dimbale pour ñu mën fa àgg waaye du priorité nag sëñ euh, ku mel ni euh, sëñ Abdou ginnaaw bi mu amee yaakaar yooyu nga xam ne dañuy dikk ngir jëmm sëñ Touba buñ dikkee ba noppi nag la de de euh, li ñuy wax découvrir maanaam iktisaaf ay jikko yoo xam ne mooy tax ñu jàpp sëñ bi te duñ ko bàyyi xam nga néew na nga gis ko daa jaxasoog sëñ Abdu ba fii may wax ak yow muy waxtaan nga gis ko ci télé wala rajo mu wax ba daaneel te néewut ne sëñ Abdu nee na ma woon loolu xikma sëñ sëñ Abdu la wa man yu'tal xikmata faqad utiya xayran kathiira jëllale naa li nga xam ne moom la daa def muy infaq bi ni mu daa dépensé nga xam ne kooku moom xaar baax la woon ci sëñ Abdou moom daanaka ibnul maan la ni mu tagge woon sëñ bu mag bi rek idhtaz lil maarufi wartaaxa lin nada wa ata ata ata alsamxi gayri lmuannabi fa daaniya min maanin wa karbin wa xaatimin wa min harimin daani wa ha wa aadil muhallabi dafa wax ne saa boo xamee ne jóg na yëngutu ngir bëgg a def njekk walla mu am mbégtem joxe joxe ci anam bi nga xam ne yeddeel du ci am parce que laa tubtilu sadaqaatikum bil manni wal adaa yooyu yëpp benn du ci am joxin wu sell lay doon te yàlla tax koo jóg mu ne bu boobaa ñi nga xam ne araab yi dañ leen a defoon madrabul matal te mooy ñu mel ne maan ñu mel ne ay karb ñu mel ne ay xaatim ak harim ak alin muhallab nee na bu boobaa doo bëggati ku le tuddal sax seeni wax parce que na muy joxe la muy joxe dafay ëpp na muy joxe dafay gën a rafet gën a sell sëñ Abdou loolu daana ko lu bari Euh, xam nga tudd na fii ni wax luy niru luxe ay yu mel noonu te loolu lépp dafa doonoon moyen boo xam ne daf ci daa wooteel sëñ Touba parce que nit ñi danoo wuute nit ñi dafa am ñoo xam ne danoo nekk sama